بسم الله الرحمن الرحيم سبعزم ربك لأعلى الذي خلق فسوي والذي خدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله خشاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلى ما شاء الله إنه يحلم الجحر وما يخفي ونذكرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر فيذكر من يخشى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 سمع الله لمن حمده الله أكبر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 wallayli idaa yaxshaaha wassamaa'i wa maa bannaaha wal ardi wa maa tahaaha wa nafsin wa maa sawwaaha wa alhamahaa fujuurahaa wa taqwaaha qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha kadabat samuudu bi taqwaaha iz inbaxasa asqaaha fa qaala lahum rasuulullaahi naaqata llaahi wa suqyaaha fa kazzabuuhu fa aqaruuhaa fa damdama alayhi rabbuhum bi zanbihim fa sawaaha wala yaqaafu uqbaaha allahu akbar sami allahu liman hamdah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu asalaamualeykum. asalaamualeykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah kasiiran wa subhaanallaahi bukratan wa asiila. allaahu akbar. bismillaahi rahmaani rahiim. acuudu billaahi mina shaytaani rajiim. wa innii acuuduhaa bika wa suriyatahaa mina shaytaani rajiim. rabbi acuudu bika mina hamaasaati sayaatiin. wa acuudu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakkin wa ala alihi wa sahbihi thawi ridwani wa tamkin ama baadu hada yowmu yowmu al iid likulli muminin muslimin muhsinin said faskuru llaha tabaraka wa taala fiih ala kawnihi sururan linnabi wa liman yaxtafih sala wa sallam alayhi llah fi alihi wa sahbihi wa kulli man talah wa uusikum fihi wa baaduhu bi mulaasamati maxtiira lakum min al axlaaqi wal aqaaid wal axwaali wal afxaali li wajhi llahi taala alxaaid wa uazirukum fihi wa baaduhu an fiili ma lam yuxtar lakum min al ibaadaati wal aadaat fa innama axtarahu llahu tabaraka wa taala lakum huwa jaamiu li saadat fa tuuba liman laa yaltafitu ila xayr rabbi mulaasiman maxtiira lahu min muniiri lubbi wa waylun liman xaadahu iblis ila ma shaa fa innahu yulaasimu ma axsa wa asa xaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum arrasulu fa xusuuh wa xaala tabaraka wa taala faman yacmal misqaala charratin xayran yarah fa tuuba liman aqsama ata bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama muti suul walilladi himmatahu yar yar tartaqi ila alxayri laa ila alkadari wa dayri wa waylun liman lam yaqus ma ata bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintiqa wa uusikum ayuha aliqwan li wajhi man kafaani sawi alxasadi walxudwaan bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatuhu tajurru lakum alaman wa kabada wa anhaakum an fi'li kulla ma lam yatabayin lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mima yuwajjiu ila xayrikum al ajra wa ridaa wa sawaaba wala tatlubu alkarama bi xayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min xayri alasiisi almuis bi jaayi abdihi nabihi rasulihi al aas fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwaahu tarakahu maa nafsihi wa hawaa wa man aqbala wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila xaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min aljamila yaa ayuha annaas abuduu rabbakum itaqi llah xaysu kuntu man kaana yuminu billahi wa yowmi alaxiri falyaqul gayran aw liyazmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama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 wa ala man tabihum bi ihsanin fi jumlati al afaq ama baadu fa hada yowmu yowmun mubarak wa lana fihi shay'un fihi lam nusharak fa ahmadu llaha tabaraka wa taala ala ma man jaada bihi fihi lilmuntaha alayhi salaamahu bi jamihi lmuxtafihi fa inna hada al yowma yowmu akli wa durbi wa utqi bi fadli man jaada bi fatqi ratqi fa man sakara allaha tabaraka wa taala fihi fa innahu yadfaru bi kulli ma min alxayri yastafiih fatlubu fiihi min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila xayrikum dayra wa tuuboo fiihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati alcisyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila xayrikum sawi tugyaan wa tawajjuhu ila rabbikum bilkitaabi wassunnati walijmaac fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man abaw fiihi ijtimaac bijaahi sil xasawaati almurdiya sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi sawi l ardiya alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linactadiya lawla an hada allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattaxiz walada walam yakun lahu sarikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min alzulli subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin